loxo yi ngeen ni tàccoo na ko gàddo seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra Iyane Thiam loxo yi ngeen ni tàccoo na ngeen ko gàddo seen kàddu sànnil ko Zahra Zahra ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون ثم إن ربك للذين آمنوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد seen doom a ngi ak ay programme nuyoo di nuyu di dalal jàmm fii maa ngi nuyu mboolem délégation bu ànd suñu futur maire de Dakar Abdoulaye Diouf tamit Benno Bokk Yaakaar bu Sicap Sicap Liberté teew fii nekk ci ginnaaw futur maire madame Zahra Iyane Thiam Diop bu nekk Liberté 6 di teg ci loxo suñu yaay maam Binta Cissé moom mi yore yi di ko teg ci loxo Cheikh Sakhanoxo mais également waa COJER ñëw nañ fortement di ko teg ci loxo seen responsable Maodo Malick kaddu yi du gudd kaddu dalal jàmm la di dalal suñu futur maire de la ville de Dakar di leen wax ne rek waa Liberté 6 suñu yaakaar yaa ngi nii toog muy monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lu tax ñu yaakaar ko daf ñoo dig te lim ñu dig gëm nañ ne buñ ko tegee mairie Dakar incha bépp Dakar waa di nga sentir ne yow Dakar nga dëkk te dakaar amal na la njëriñ kon nag dañ ñoo yàgg nax dañ ñoo yàgg fowe ku jóg utiliser mairie dakaar di ko def sa xeexu bopp. te kii nag gis nañ ko bañ ko dalee dénk depuis mu ñu commencé ko nommé DG ba ministère de la santé gis nañ ne dara ñoru ko lu askan wi kon ku mel noonu buñ ko amee Dakar lan la ñuy waxati kon Dakar maa ngi leen di ñaan rawatina si Cap Liberté nañu xam li ñu bëgg xam suñu njëriñ suñu njëriñ a ngi nii monsieur Abdoulaye Diouf Sarr Zahra yow nag wax si yow moom ñun ñu ngi koy dox si Cap Liberté bii kenn du fi gis dara ku dul Sicap Liberté bi Zahra Iyane Thiam 100 pour cent la fi am te Liberté 6 loolu moo ci jiitu donc nag kàddu yi maa koy yemale di leen jox rendez-vous le 23 janvier incha allah dañuy jubile Liberté 6 Sicap ba Dakar incha allah merci beaucoup. lu ma ciy jëf jëmale ko ci askan bi dama koy jaaree ci li ñuy wax ay gox-goxaat dama koy jaarale ci commune wala ma jaarale ko ci département. kon comme boobu nga xam ne état bi mi ngi koy jël jagleel ko njaboot bi ñañuy dénk groupe barab yooyu foog ñu xam leen booy tànn sa maire da ngay xam ban maire ngay tànn ndax lépp looy soxla moo xam xale yi dem jàngi école moo xam xale yi bëgg faju foofu ngay dem te yéen nag foog naa ne mosu gis seen maire xam ngeen maire bi xam nga xamu leen maire bi xamu leen luy dox ci maire bi xamu leen bu tabaski jotee lan la ñuy joxe bu korite joxte lan la ñuy joxe tali yaa ngi nii buñ fi jaaree suñu dàll yëpp ay yàqu yii mu xoosu boo bëggee dem julli ji fajar foog nga waajaat ko ndax boo génnee doo xam lu lay fekk ci yoon bi lamp yi leerul waa loolu yëpp nga xam ne mairie bi da ko war a def te defu ko am na nag ay at ci ginnaaw am na as lu ñu gis ndax kër yi fu ñu dugg ñu ne ñu dañu bëgg pavage am na as tuut loo xam ne commencé woon nañ ko def ci ay pavage mais loolu ma nga jóge woon ci ville de Dakar kon tey askan bi yëpp a war a xam te warul yem commune Sicap Liberté rek 19 communes de Dakar yëpp ñoo war a xam ne képp ku jàppale Diouf Sarr sa bopp nga jàppale ndax su commune bi mënee benn ville de mën na fukk kon nag nañu xam ne voté ville de Dakar jàppale suñu bopp la jàppale suñuy njaboot la ndax boo seetloo ville de Dakar budget mi ngi toll ci juróom fukki milliards juróom fukki milliards ay at fukki at ak ñaar ay nit yore ko toll na rek gën caa ci téeméeri milliards ci juróom benn téeméeri milliards wan ma ban commune ngay dugg gis fa lu tolloog milliard luñ fa tabax amul kon bu ñuy dénk dañuy dénk ku ñu wóolu ndax la monsieur le ministre Abdoulaye Diouf Sarr da nga wax lu am solo te lu am solo loolu nga wax moo tax ñu ànd ak yow te dinañu xar suñu tànk tubéy pour fal la ndax buñ la falee yow lañ ko defal suñuy njaboot lañ ko defal képp ku fal la ministre Abdoulaye Diouf Sarr sa bopp nga ko defal sa doom nga ko defal sa yaay nga ko defal sa papa nga ko defal ndax Ablaye Diouf Sarr dafa ñëw ne bu ñuy jox mairie ville de Dakar juróom fukki milliards danaa ko yóbbu téeméeri milliards boo ko yóbboo téeméeri milliards ci njaboot bi nga ko fas yéene def ci environnement bi nga ko fas yéene def ci secteur privé bi nga ko fas yéene def mais surtout ci jigéen ñi ak la secteur informel marchand ambulant yi artisan yi ouvrier yi ci xëyu ndaw yi la ko fas yéene def kon population de Sicap ñëwu ministre Ablaye Diouf saar bi dafa am solo bu ñu fi jógee lu ñu def benn pour suñu mairie Sicap bi nañ ci def fukk pour le ab Ablaye Diouf Sarr te ñun ñëpp kenn ku nekk am na mbokk Pikine fële Colobane kenn ku nekk am na mbokk fas kenn ku nekk am na mbokk Patte kenn ku nekk am na mbokk Grand Yoff nañu sot sot bi affaire bi dañ koy song sot ko daan ko jox ko la ministre Abdoulaye Diouf Sarr beneen bi may daanalee ndax tey li tax ñu indi ko dañuy bàyyi mu wax programme ñun suñu candidat dañuy sawar ci muy dajeek ay mbooloo ndax dafa am programme bokkul ak ñi nga xam ne ñi ngi wër di tambaambaalu suba ngoon guddeeg bëccëg defuñu fi lenn kon moom dañ koy bàyyi mu wax programme am mais dama bëgg ngeen seet lu dara ndax dafa am nit ñu tedd ñoo xam ne duñu dugg ci ay caaxaan lu ñu dugg rek dañ ko seet seetantal ko ku mel ni Chérif Mamine Aïdara bu nangoo ànd ak ñun wóolu ñu wóolu la coalition Benno Bokk Yaakaar dama ne bum ñu gën a gore ndax la muy am am na ko ba pare bu ko neexoon toog moo doyen Adi Wade ngi nii jiite makku jumaa ji ci liberte 5 ak ñeneen ak ñeneen ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñoom dañu taxaw suñu wet nangu fës te li tax ñi def loolu mooy ñoom fii lañu ñu dëkk dañu dëkk ci dëkk bi seeni doom dëkk ci dëkk bi seeni njaboot dëkk ci dëkk bi bu ñu ne leen foo ngeen jëm dañ naan demuñu fenn fu dul des ci dëkk bi dëkk bi mooy liberté dëkk bi mooy ndakaaru kon ñii ndakaaroo tax a jóg kon nag bu ñu nangu bu ñu nangu dénk suñu ndakaaru bii loxo yoo xam ne xamuñu ko te jàpp naa ne xameewu leen ñu caaxaan xameewu leen ñu caaxaan kon nag au soir du 23 janvier ñaari scrutin yi nga xam ne moom moo am dañuy voté benn Sicap Liberté voté benn Patte d'Oie voté benn Grand Yoff voté benn Point E ba 19 yëpp mat bi si des ñu def ko ville de Dakar jël suñu candidat le ministre Abdoulaye Diouf Sarr fal ko te li ma wax rek fal ko du fal ko moom mais fal suñuy njaboot la fal suñu intérêt la fal li gën si ñun la maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di gërëm délégation bi ànd ak le ministre Abdoulaye Diouf Sarr suñu camarade le ministre Seydou Gueye mi ngi ci le directeur général Pape Mayel Diop mi ngi ci le directeur général Malick Diop mi ngi ci gis naa fi le directeur général Saliou Keita ñoom ak l'honorable député Badou Diouf ñoom ak mboolem responsable yi fi ne la ministre conseil Aïssatou Cissé ñu leen di sant di leen gërëm monsieur la ministre ñu lay remercier ci sa temps bi nga xam ne consacré nga ko à la commune de Sicap Liberté yàlla na yàlla may. may nuyu monsieur le directeur général Pape di nuyu naturellement monsieur ministre Seydou Gueye Pape Golem Diom maa ngi nuyu Salif Keita di nuyu kilifa yi ma fekk yëpp. honorable député Aline Badara Diouf ñu ngi lay nuyu sa taxawaay rafet na. ma gàttal jubal directement ci Dakar bu bees. dakaar bu bees lan lay indil dakaar ah Dakar bu bees sàgginul ne bi fi newoon. du Dakar bi fi ne woon Dakar la mais dafa am ñoo xamee en 2014 dañoo ñëw ne ñu jox leen Dakar dañ koy taxawu ah yéen li ngeen gis Zahra Iyane Thiam démontré ko léegi plus de six cent milliards de budget cumulé boobu ba léegi mënuñ si taxawal dara lu askan bi teg seen loxo gis ko ñooñu taxawuñu Dakar dañoo tardel Dakar bon dëkk waa tardel Dakar moo tax ñun ñu ne Dakar bu bees Dakar bu bees la lay indi Saliou wax na ko léegi pencoo la indi lu ñuy wax gouvernance bu bees inclusivité yéen waa Sicap waa Yoff waa Cambérène waa Gorée waa Plateau partout dans Dakar bu ñu bëggee defar budget dox ci seeni soxla dañ leen di dajale d'abord laaj leen lan mooy seen soxla ñu taxaw ci seeni soxla par le biais d'une conférence territoriale loolu mooy une gouvernance inclusive dans Dakar bu bees kenn proposé wu ko Dakar bu bees lan lay indi madame la ministre Aïssatou maa lay nuyu bu baax di rafetlu sa taxawaay ci comité scientifique ba nga bokk yow dugal nga si biir benn assistance aux personnes vulnérables parce que les personnes vulnérables dañoo am part bu mag si Dakar te kenn mësu ko jox yow taxaw nga ne les personnes vulnérables incha allah dañu leen di jox seen wàll si Dakar moo tax suñu programme bi nga ko fekk Dakar ville protectrice des personnes vulnérables mais si suñu programme danañ fi fekk wàll pour jigéen bi Zahra Iyane Thiam xam nga lan mooy économie sociale et solidaire xam nga lan mooy jox jigéen ñi ay financement mais financement yoo xamante kenn du leen rendi ak ay taux d'intérêt financement yoo xamante ne kenn du leen rendi ak usure financement yoo xamante dañ koy mën a gàddu dañ ko fay te du jël seen bénéfice ville de Dakar depuis dix ans am na fond bu fa nekk pour jigéen ñi pour ndaw ñi pour artisan yi pour entrepreneur yi pour Dakar waay yi mais ñi ko yëg bariwul ñoom ñoo koy jël di ko jox seeni ñooñ Dakar waay yëguñu ko ñu nag bu ñu ñëwee ak Dakar bu bees danañu teg un fond boo xamante ne képp ku bëgg a liggéey Dakar muy jigéen muy xale muy artisan muy tailleur ak ku mu mën boo ñëwee sa maire dana la gunge par un fond boo xamante ne day jëriñ les Dakaroises et les Dakarois te liñ leen si tegal day mel ni tegalu leen si dara loolu mooy jàppale sa askan Zahra Thiam wax na la sécurité ñun si suñu programme dakaar bu bees def nañ fii le concept des quartiers sûrs un quartier sûr mooy xale yi jigéen ñi ak ASC yi ak délégués yi ñëpp ànd force de france et de sécurité jàppale leen ASP jàppale leen pour que ñu sécuriser quartier bi teg un numéro vert dédié aux alertes pour que à chaque fois que de besoin ñu mën a aar askan bi loolu mooy Dakar bu bees tey may kontaan ñëw fii si liberté fekk fii sama xarit sama collègue koo xamante ne ñun ñi nekk ak moom day xam nañ valeur am mooy madame la ministre Zahra Iyane dama wax léegi bi ma gisee muy yëngatu ma ne sama xel ah yox buñ moytuwul la capitale politique de Dakar va de de cas. léeg-léeg très choc la Sicap Liberté la capitale politique.